biir assemblée nationale ñu ngi wax mbirum transport ak infrastructure Mansour Faye di jiite ministère boobule jàmmarloo ak député yi ñu war a voté budget ñu interpellé ko ci lu bëri ay discours politique 2024 incha su ko Amadou Ba mottalee ak PSD bi dinañ dépassé 6 000 kilomètres loolu nag ku bañ Sénégal dong naan kii amul ambition. ak di koy tagg. ñu war a feesal journée bi nga xam ne nii dafa traversé Gambie rek moo xam ne da nga koy bayoon na te at waxatuma la BRT te carte yi dem autoroute gaa yi gaa yi jël ko def ko seen nekk wante fii nga xamante ni député bu ñëw day wax li nga xamante ni jot nañ ko def. am na ñenn ñoo xamante ni seen gox la ñu waxal. moo tax sëriñ bi ne rek amul carte Pikine te soo tali Icotaf Pikine ak tali postu Thiaroye 103 bi may wax ba jëm jëmbal monsieur le ministre la route Darou Khayri Darou Salam Chérif hmm. dans le Kataba devrait être gouvernée parce qu'il abrite un foyer religieux très important. moom ay critique critique yu bëre ci gox goxaan yi ñu ko gérer. réseau d' assainissement bi am commune de Mbour ça presque avant indépendance tous les réseaux sont vétustes. mu nekk ñu jukki wax ko am ñu wax ministre bi di dafa échec ndaxte accident yi mu ngi toll ci sept cent at mu jot